ak maam lees maam gis nga lamb ji ni mu mujjee mel papa yaat mujjee am ndam ci ko nga xamante ne mooy Papa Boy Djiné ñoom ñaar dañoo daw xeex biñ dawee xeex mu am prise Papa Boy Djiné tafu ci wetu maag ki nga xamante ne mooy papa yaat daal koy mbot daaneel ko nan nga gisee combat bi Thiandoum avant combat bay commencé dama laa wax lu mel ni midi dama ne la yaat daa daa mën a xeex te mbër mu rabe la papa Papa Boy bu téyee ci combat bi heure ko jàppee combat ci man da koy daal parce que wax naa la noonu lay bëree chaque fois bii mooy huitième combat am xaw ma neuvième combat yoo xam ne laalagul suuf Papa Boy Djiné indi na volume indi na poids mais poids bi bu xooloon Papa Yade war na ko gën a wàññi tuuti xam nga décortiquer aussi booy décortiquer décortiquer li nga xam ne moom nga xam Papa Boy Djiné waru woon indi volume bi ñaare mooy li ma la wax sànq Papa Yade da lay jokkaas si xeex mel ni mbër mu rabe mais mbërum fitt la bi mu ko fittee bi mu ko déclenché mbot Papa Boy Djiné dafa jiitu mais suma ma la déggee dafa mel ni ñu doon wax sànq rek papa ki nga xam mooy papa Yada dafa gée ci mobilité ba am li bëgg. non parce que tooñ baaxul tooñ nañ papa Yada avant combat bee commencé dagg nañ ay yéreem avant combat bee commencé ba ama neex ñëw na di leen ko réclamer mais dama ne la papa Yada mbër mu saay-saay na mbër mu ndaanaan la ba pare poids am chaque fois boo ko gisee da koy xeeb waaye mbër mu rabale ci li muy def. te ku mu jàpp bu dawoo ba jóg yow xeex ak yow juum la boo ñëwee bu la la daan. mais gis nañ ñu jot a jàppante dafa mel différence de poids bi feeñul trop ci combat bi. non Papa Boy Djiné volume nee naa la ba tàyyi di nga gis ku gudd rëy diis gan ponkal mu tuuti daan ko day am làmb mel mais dama ne la Papa Yade mi bee boo ñu may ko xel ndax mbër muñ dul may xel la ndax Baye Fall la Baye Fall nag ak du am tan looy ragal Papa Boy Djiné peut-être yenn woon na yenn woon na combat bi daan na xaaral ma yokk ci doole. ndax gis na état bi Papa Yade yor mais Papa Yade état bi mu yor mooy état am parce que bu ko yokkee wala mu def ci leneen di ci bokkul mooy jël ay abolisant te loolu baaxut ci moom lii mbërëntaan la mbër mu mën a xeex la mbër mu ñeme li muy def la mbër mu am fit la moom Papa Yade kon su ma la déggee daal poids ba ñu ne li ñu doon jot poids bi mu andi tey poids bi des naa moom yaramam non poids bi baaxul parce que li mu doon def mooy mën a diib ndànk ba jàpp mais bi mu demee provoqué Papa Yade Papa Yade da ko yónnee épicule boo xam ne bi muy sulli bopp bi loxo loxo Papa Yade na bi mu dugaatee di ko jéem a jàpp Papa Yade da ko wiccu papa papa boo jëlee ñëw yooru mu déclenché ko mot papa boo jëlee juutu suuf daal na ko jël bu am ah maam loolu rëy na léegi nag gone ak gi Papa Yade boobu léegi mi ngi jeexal ay rakam fan la jëm. bii mooy neuvième combat am su ma juumul Papa Yade ay combat am ndax mbër mu yéex a bëri la waaye champion la nañ ko may xel. maam ñu ngi lay sant di la di leen baax ko. jërëjëf jërëjëf.